Al Hassane Hanne ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nga bokk ci collectif des habitants de Terme Sud. Euh, waaw yaa seen voilà voilà euh, tey jii euh, coow li bëri na. ci li xew mhm. Wakaam terme sud boobule ñi ñaa ngi ne logement de fonction la ñenn ñi di mhm. démentir li ni mel lan lañ mën a jàpp ci mbir mi waaw soxna si maa leen di nuyu di leen masawu ci li nga xam ne moo dal ci ñun ñëpp askan wi yëpp parce que ku mu dal sa kaw it dal na ci sa kaw mbokk mm-hmm. te militaire mbokk ñëpp la euh, léegi euh, wax gi ñu wax pour lëndëmal xel yi mm-hmm. wax ju yàqu la armée kenn amul benn militaire amul sañ-sañu armée logé la ci logement nga retraité ñu ne la génnal nga bañ képp ku nekk armée képp ku xam armée di nga xam ne loolu amul fenn mënta ne li ci ne rek mooy euh, ñun fi ñu dëkk nii terrain la boo xam ne terrain privé de l'État la u naam joxoon nañ ko armée pour mu utiliser ko en bail état bi si ñëwoon na bail ak armée pour armée bi ci loger ay militaires comme ñun waaye 1994 ba mu jotee bail ba armée ci boppam moo jóg daal di koy résilier maanaam delloo style bi état du Sénégal ba pare nag ñun ñi nga xam ne ñoo ci logé woon ñu bàyyi ñu ci informé wuñ ñu defuñu dara continuer di ñu couper suñu indemnité de logement yi ak yeneen yu sew sewaat yi ñun ñi nga xam ne nag ñoo ci dëkkoon ñu continuer di entretenir bâtiment yi dégg nga ba mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf état du Sénégal comme moom moom suuf si mu xëy morcelé ko di ko joxe ñu am xibaar bi am xibaaru ne ñun ñi ci dëkk aussi loi yëpp may nañ pour ñun ñu demander balaa ñuy jox benn sénégalais ñu jox ñu ci la ñu def ay correspondance en deux mille ñu def correspondance adressée au ministre au premier ministre ba mu demee ñu renouveler ko ak Mame Madior ba pare dem correspondance ministre des forces armées comme ñun militaire lañu mooy suñu ministère de tutelle mhm. biñ ci pare ñu def correspondance adressé ko Euh, président de la république mu rafetlu ko ba jël suñu dossier diligenté ko dossier bi dem ministère des finance ñu jël euh, en 2007 ñu jël euh, demande de régularisation par voie de bail mm-hmm. ñu envoyé ko ministre des finances léegi nag ñun bi ñu envoyé demande boobu dañ ko joindre ak liste habitants yi liste habitants yi ba mu demee ba ministre des ministère des finances traité ko war ñu delloo courrier bi en retour mhm. mu jaar état-major général des armées ay ay ay chef militaire daal di plagier liste bi maanaam teggi suñuy tur dugal seen tur bañ ko defee nag naam euh, euh, état bi euh, service état bi waxoon nañ leen ne loolu mënta nekk parce que ñooñu ñoo fa dëkk et cetera et cetera mais ñun faale ñu loolu dañu ne ñoom ñooy suñu chef bu ñu jub leen dañuy jóg moo tax ñu ñëw song ñu en deux mille huit nañu nañu dëgër pilier ñu ne leen lu tax ñu ne non fii dañ ko jaay comico ñu neñ leen comico mooy lan comico coopérative la hmm. à caractère civil daraam du militaire te ñun dañ fi dëkk comico mënul ñëw jënd jënd terrain bi te ñun ñu dëkk fi ñu jóg daal di ñuy yóbbu gendarmerie bi ñu yóbbu gendarmerie prévôtale ñu déglu ñu ñu wax li ñuy wax hmm. loolu doyu leen ñu yóbbu ñu tribunal en deux mille neuf ñu demee tribunal ñoom euh, ñu ñu mbubboo comi comico mhm. coopérative na ñoom comico dafa jënd cent quarante parcelles de cent cinquante mètres carrés fii ci site bi nga xam ne dañ ko numéroté de un à cent quarante mhm. boo ko xaymaa muy vingt et un mille mètres carrés ñu ne dafa jóge ci morcellement bu état bi def ñun ñu dëkk ci site kenn évacué wu ko kenn terrassé wu ko kenn viabilisé wu ko kenn defu fi benn morcellement ñu dem tribunal jël suñu collectif d'avocats informé tribunal tribunal à l'issue des nombreux débats mm -hmm. en deux mille quinze ñu daan comico daan état du Sénégal ba pare demande état du Sénégal mu résilier lépp loo xam ne doxoon na digganteem ak coopérative militaire de construction muy lu ñaaw ba pare nag coopérative militaire de construction boobu sax mhm. fii ci site Euh, kenn mënatu ko fe élire maanaam mënatu fee am dara parce que ba mu sosoo coopérative unitaire de construction boobu en 1993 mm-hmm. mm-hmm. dañ ko fe jox benn titre foncier bu mooy premier projet donc am na fi titre foncier ci terrain ba pare mënatu cee am léegi bu ko chef militaire yi mbubbu yu mbubbu woo aussi dañu dañu sonn rek mais mënul nekk léegi bi leen taane en 1995 mm-hmm. état du Sénégal moom interjeté wul appel. ñoom comico ñuy wut gymnastique bi ñuy def pour rek mën a am décision de justice ñëw dal suñu kaw maanaam dañoo dem cette fois-ci au lieu des vingt des cent quarante parcelles de cent cinquante mètres carrés mhm. ñu wëlbatiku dem ne état bi jaay na leen trente et un mille neuf cent deux mètres carrés de terrain nu dégg nga je précise bien trente et mille neuf cent deux mètres de terrain nu mhm. mais ñu fi ñu dëkk ñun ci ay bâtiment lañ dëkk dëkkuñu ci terrain nu ci loolu lañ ñu attaqué dem instrumentaliser tribunal bi ba tribunal bi génneel leen décision de justice ne leen jaay nañ leen trente et un mille euh, neuf cent deux mètres carrés de terrain ni immatriculé ko vingt quatre cinquante quatre sur NGA maanaam mu am titre foncier mm-hmm. ko ni ko nan lay mën a amee titre foncier ci site boo xam ne ni ñaa ngi fa dëkk jëlagu ko euh, mettre gu ko en valeur ba pare nag am na ci titre foncier benn ba pare man bëgg a ak ñaareelu titre foncier mhm. yëfu tappale yooyu la yóbbu yóbbu na ko yóbbu na ko ba am ay décision de justice dégg nga ci ci ci li tegu fenn ñëw tey attaqué tey jii euh, gis nañ mhm. benn communiqué bu DIRPA buy wax le contraire euh, seen version lan lañ mën a jàpp tey ci communiqué boobu nga xam ne DIRPA nee na euh, Comico confirmé nañ ko ci lii di ak ak yelleef. mais Comico bu leen neexee ñu confirmé ko. confirmer nañ ko ñoom ñoo xam ci seen i biir ñoom ci seen biir la ñoom ñoo soxla suuf si mais biñ koy confirmer nañ ko confirmer ci lu jaar yoon ñu ko confirmer ci terrain trois hectares de terrain ni ñëw di di di di dàq ay nit ci ci ci ci ci ay bâtiment comme ko mënta jóge fële ñu sos ko en en en en avant disons en mille neuf cent quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-onze mhm. ñun ñu dëkk fii depuis quarante ans ici depuis soixante dix neuf des les gens habitent au terme sud comico ñëw ñuy ñu terrain bi ñu dëkk ñu koy joxe ñu jox comico nga xam ne am na ci ba pare bàyyi ñi fi dëkk état bi euh, xalaatuñu loolu bu bu fekkoon ne mën na ne keroog ba ñu condamné état bi en mille neuf cent quatre vingt en euh, deux mille quinze keroog état bi dina interjeté appel mais interjeté wul appel parce que xam na ne lañ ko wax dëgg la comico fe fee am lépp loo gis mu génn ci kayitu tribunal ay tappale la ay njuuj njaat la dara du ci dëgg dara tegu ci ci yoon normalement document yooyu yëpp dañ ko war lakk moo tax fii ñu nekk nii euh, l'audience en appel dañu assigner le les service des impôts et des domaines mhm. pour ñu ñëw devant le juge expliquer juge bi li am parce que ñun am nañu kayit yëpp parce que juge bi buñ ko joxee kayit goo xam ne terrain bi terrain bi këyit gi dafoo ne les états de droit réel yi nga xam ne moom la ñu euh, euh, service impôt doon délivré mhm. wane ne terrain bi terrain la boo xam ne état du Sénégal moo ko moom charge néant maanaam comico kenn tudd ko ci ñu dem génne plan cadastral boo xam ne dañoo wone morcellement bu ñu def jox ñu suñu kër yi bâtiment bu ne ñu représenté ko ci mhm. espace vide ñu morcelé ko ci te kenn tudd ci comico comico bañ ci tudd rek mooy ba mu amoon en 1993 ba ñu defal ko ci titre foncier loolu ñun def ñu jaaxal loolu mooy problème bi. kon daal yéen jàpp ngeen ne dañ leen tooñ ba pare jaay leen doole. loolu kese la loolu dong la la ñuy wër nag bëgg lëndëmal xelu askan wi naan ay logement de fonction la benn du logement de fonction parce que logement de fonction kenn du ko morcelé di ko jaay bañu la wax aussi naan ñun dañoo nekk ay retraité yi armée ñu génn leen ñu bañ armée logé tuñu état du Sénégal ci boppam moo ñu logé moom parce que moom mooy coupé suñu moo doon coupé suñu indemnité de logement te ci terrain privé de l'état lañ ne waa tey bañ tey lan lañ leen jox comme garantie non man ma ma ma ma ma ma leeralaat tuuti rek doog a ñëw ci loolu la wax naan ñun dañoo retraité ñu ne ñu génn leen ba affaire bi di door en deux mille huit mhm. kenn ci ñun retraité wul wala boog bu amee benn la wala ñaar ñi ci des ñëpp nous étions en activité ñoo song kay xoqatal ñun ne ñu léegi da ngeen di génn wala dootu leen am dara ci armée bi mhm. ku ci mel ni man ñu persécuté ma de deux mille huit à deux mille onze deux mille onze laa def sama résiliation de contrat ñu bañ koo signé ne tant que génn ñu buñ ko signé ba ba loolu amee mu jël loolu yëpp taxañ ko yóbbu ko tribunal ba ñu xamee ne tey ñu dee ñu jël affaire bi yo ñu jël dossier bi jox ko général chef d'état-major général des armées bi ñu indi ñëw torop menacé leen. Mhm. Euh, menacé chef militaire yi ba ñoom ci seen bopp. ci dans en une en une demi-journée. Mhm. ci la ñu traité sama dossier. génne ma armée ba pare daal di retenir sama certificat de de de ba ba fi may wax ak yow nii. jotuma ko donc tout ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une forfaiture dañ ñoo doole génne ñu ci terrain boo xam ne amul benn sénégalais tey boo xam ne yaa ñu ñu ko gën a yeyoo nous sommes nous avons la priorité sur qui que ce soit mhm. balaa ñoo jox kenn ci boo xam ne dëkk nañ ci quarante ans trente ans ba pare laaj ko état état jox ñu ko ñun la ñu war jox ba pare balaa ñoo jox keneen mhm. tey ji génn nañu nee nañ nañ génn suñ génne nañ suñ bagage waaye di nga dox ba gis commerçant bu ne Sandaga wala nga gis expatrié bu ñëw yor baay ñëw ci site ñu jox ko cent cinquante mètres carrés mu tabax ko te ñun ñoo fa dëkkoon def quarante ans suñu doom yëpp juddoo ko muy forfaiture forfaiture boo xam ne kenn xamul lan la waaw léegi nag mu nekk lobby boo xam ne def nañu seen ñaawteef euh, lor nañu ay euh, jàmbur euh, maanaam communauté la ñu fekk mu sosu installé wu. Mhm. plus de mille âmes. dégg nga ñu ñu ñu intégré ñii sëy ci seen biir tey jii disloqué nañ famille yi famille yi lëmb sax dangay gis kii jaar nii kii jaar nii kii jaar nii dégg nga. loolu la léegi ndax dafa am ñu leen jox wala dañ leen génnee noonu rek ku nekk xool li gën ci moom mu def ko. joxuñ ñu dara dara lañ ñu joxul cest à la ñu def euh, kenn du ko def sax mala dégg mala kenn du ko ko def kenn du ko def mala. tey jii ndax da ngeen fas yéene euh, yóbbu mbir mi waat ci yoon. Euh, yoon pareegul sax parce que tey jii may wax ak yow nii ñun tey léegi léegi nii amoon nañu audience boo xam ne audience d'appel la suñu diggante ak ñoom waa comico boobu dégg nga ñu ngi noonu dem nañu nee nañu audience bi ça va se tenir à huis clos ñoom ñoo xam affaire bi du affaire du tribunal tout ce qui se passe n'est qu'une parodie de justice maanaam loo xam ne la warul sax séjourner tribunal. ko xam ne ne nga ci titre yi ñu jox la ci ba pare nga ñëw di laajaat dañ la waroon a delloo say kayit koo xam ne dañ laa jox nga ne dañ laa jox trois hectares mhm. nga ñëw fekk nit ñi si treize hectares de surface bâtie yow nga ne trois hectares de terrain nii lañ la jox nga ñëw fekk nit ci treize hectares de surface bâtie nga dëgër pir leen ñoom ñëpp yow kan ngay liggéeyal dix hectares supplémentaires yi ku ko moom yow moomoo sax trois hectares yi loolu lan la. loolu de moo xew. ci biir xibaar yi keroog bañ leen fay jëlee mu am jàmmaarloo gu métti diggante ay ndaw ak euh, takk der yi euh, mhm. information yi di wax ne am na ki nga xam ne ñàkk na ci bakkanam lan mooy dëgg ci mbir mi. waaw finalement ñun ñëpp amoon nañ ci tànge parce qu'on suivait peut-être pour ñenn ñi on suivait les affaires à distance parce que dañoo ñëw assiéger site bi euh, def ko en état de siège mel ni ñu ñëw. Euh, di déloger ay narcotrafiquants boo demee Colombie sax lu mel ni amu fi dégg nga ñu toog fi ñuy toog ku ne toog fi nga toog information yi di daw ci net bi ñu am njàqare lool waaye ba ñu demee mhm. ba renseigné wu yàlla def na ci ndox mu sedd kooku ñàkkul bakkanam waaw ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. ndax am ngeen yaakaar ni euh, ndaje à huis clos bi dina am lu mu saafara ci seen euh, jafe-jafe. ñun dañoo jàppul ne mbir mi justice du justice justice moomul suuf si suuf si administration état moo ko moom état moo koy administré war ko jox si sénégalais yi ci ay anam yu leer nañ suivant des lois bien établies léegi nag ñun loi yooyu ñun la prioriser ñun ñoo am priorité sur qui que ce soit mm-hmm. état bi firndeel ñu ko fii may wax ak yow nii am na benn morcellement bu am ba pare bu prévoir tous les habitants au regard de leur bâtiment ci ci morcellement boobu mm. le plan cadastral ñu ngi ko yore te li ci gën a ñaaw sax mooy laata mbir mi di am ñun dañ daan dem ci direction wu état bi mm. moo xam urbanisme la moo xam euh, domaine boo jubee ci lecteur bi rek lim lay njëkk wax mooy yéen bu leen ma sonal man seen kër yi pare nañ ci ba pare jox nañ leen seen kër yi li ci des ñun espace yi la ñu euh, pour pour euh, la distribution yéen dem leen toog suñu paree dinañ leen notifier buñ ko defee ñun ku nekk li nga am ak li nga amul nga dajale ko ñëw di defaraat sa kër mhm. ñu fekk ñu fi tey jii loolu yëpp ñu neenal ko lii mooy wax ci Alhassane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf si